Sénégal yëpp déglu ma kii fii la nekk ci réew mi di jàppale ay jeunesse jeunesse bi yëpp tey fu ne laa jotee message ñoo xam ne dañoo bëgg a wax amuñu ku leen jàllaleel seen wax tey jeunesse bi laa fi nekkal kii defal na fi nit lu ne jox na leen ay ordinateur ñu jàng jox na leen xaalis ñu faj seen yaay dimbali na leen ci social bu ne te propre moyen lay génnee di jox jeunesse bi ñuy liggéey ñëpp xam ko ci teraange ñëpp xam ko ci te ñëpp xam ko ci gar kon kii du tontu kenn. Ousmane Noël bis bu tontoo bu ma yëgoon ni day tontu duma fi ñëw dama ko doon dégg téléphone chaque jour chaque jour chaque jour musuma fee teg sama tànk tey dinaa fi teg sama tànk ndax moom moo ko jar Ousmane Noël coow yi dama koo dégg ne force damay ñëw fii wax ak yow bul tontu. jeunesse bi bëgg nañu la. yaa ngi leen di jàppale yaa ngi leen di teral mi ngi leer naññ ñooñu laa fi nekkal tey. tey bi nga xam ne amal nga leen njëriñ te ñoom ñooy jooy chaque jour naan dañoo sonn yow ngay jàpp. ñu koy def si Ousmane Noël ma ne leen kooku nag kenn mënu ci moom dara parce que Serigne Touba moo ko teral ak yàlla suñu borom ndax li muy am mi ngi koy bokk ak jàmm ñi foo ko gis leen rek lay génn sorti bi mu def jeunesse bi sorti bi mu def maye loolu dañ koy jàppale man de barke Serigne Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér sa wër sa gën a bari nga koy bokk ak jaamu yàlla yi. xam sama xarit la. waaw xol lay waxee. mais que dalal la sa xel man aw ma jot xam nga man jot ban am ban temps la am. fi mu may def ba korité bi jaamu yàlla yëpp korité ci jaamu. nga ni def tey jii ba jeunesse bi am dara. xoolal korité bi tey fi mu toll nii bi ay nag lay jënd korité ay nag. rey ko def ko ay saamu yàpp. ay nag. tabaski mu jënd ay xar joxe. tam xarit mu rayaat ay nag. tam di dimbali doomu aadama yi yéen a ngi gis tiktok am commentaire yi benn commentaire rek ngay gis may ma may ma may ma may ma jox ma jox ma jox ma jox ma ah, lii laa bëgg lii laa dugg leen ci ay commentaire u tiktok am Ousmane Noël Dieng dugg leen ngeen xool soo leen fa gisee benn message bu dul tonton Ousmane may ma. nga war a gën a mën a gis ni leen ni ñii ñu ngi jàppale i. absolument loolu bi. absolument la ko mën naa def le tout wax dëgg yàlla li kenn amul fay ki lii lii xool ak koy def yal la yàlla fay man aw ma aw ma sa fay man mënu ma laa fay aw lu la fay waaye nag am naa yàlla yàlla mi am fay yal na la yàlla fay may la gudd fan ak wér li nga def yàlla boo ko rëccu ci barke bi sallallahu alayhi wa may la ci wax dëgg yàlla teraanga sax bu ñëpp teg seen defee nga si jàppale yooyu tamit jaamu yàlla yi sa kuur yàlla barkeel ko nga am diplôme yu yaatu am doctorat am lépp ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Ahmadou Bamba si sëriñ ah yàlla barkeel